bon asalaamaaleykum euh, euh, di bég di kontaan ci ñëw bi ngeen ñëw pour ñu waxtaan ci ci combat Papa Sow Siteu bi amoon le 5 euh, décembre 2021 arène nationale. Papa Sow ku ko xam xam ne mbër la boo xam te nii amoon na planification bu baax par rapport ak parcours parce que def na 32 combats 23 victoires 8 défaites 1 match nul donc kooku ko def nekkoon écurie Fass. sa famille pratiquement ñëpp nekk di mbër donc sa expérience war na mën a jouer ci sa plan de carrière et hygiène de vie Papa Sow ñëpp xam nañ ne hygiène de vie bu baax la am euh, parce que bi mu nekkee Fass hormis euh, Tafa euh, Tafa Gueye ak Gris Bordeaux je crois moom ak Forza ñoo ko xam ne demoon na éclore lañu au niveau de Fass mais l'entraînement ne triche pas il faut avoir des des principes pédagogiques d'efficacité pour aju boole li ñuy wax. la préparation physique générale ak lu ñuy wax la préparation physique spécifique et spécifique pourquoi parce que en vue d'un combat mais fekkante ne toog nga depuis son dernier combat contre Baye Mandione euh, en 2013 jusqu'en 2015 donc diggante boobu toog na ba 2021 donc ça fait 6 à 7 ans 8 ans mu am fi un conflit interne au niveau de de de l'écurie Fass donc loolu da ko mën a jom mu mën a pour que attente bi nga xam te ne ñu ngi koy xaar si si moom par rapport ak lu mu fa jógee créer euh, une écurie bu tudd Jambar Wrestling Academy je crois que loolu war na ko mën a nekk source de motivation donc ñàkkul ne loolu moo tax mu liggéey et puis en plus de cela euh, ànd na fi ak Modou Lo ci préparation son son dernier combat contre Balla Gaye donc ànd si ak ñoom Franc ainsi de suite donc loolu aussi beneen beneen beneen beneen cas de figure la donc dene euh, mën naa ci wax parce que bi muy créé écrit bi ak léegi euh, on a vu une une une, une symbiose de des 100 pour cent bu nekk autour de lui et je crois que ñooñu ñëpp am na fu ñu bokk en appartenance par rapport à une écurie euh, par rapport à une structure partielle par rapport à une structure de progression mais la finition c'est là où ça ça défaut parce que la finition quand même ne doit pas permettre à Papa Sow d'être accompagné par ces certains lutteurs ces certaines personnes de lutteurs donc loolu que je Je suis le directeur technique régional de l'équipe de Dakar au niveau du CNG dans sa commission. Il m'est quand même facile de dire sama observation. Mais donc je crois Papa Sow entraînement moom si waxoon sax war na parce que vécu mu def mais un athlète de haut niveau dafa war am un entraîneur professionnel mais dans des de, de compétition pour une organisation bien propre. non surtout euh, c'est c'est une constance parce que à part euh, le boo xam ne ñëpp ça fait jot na fi dem MMA donc voyagé na fi aux États-Unis donc def si de préparation donc Siteu nekk na xale yoo xam ne booy mag parce que boo seetee Siteu bu muy commencé bëri ak léegi ça implique ne euh, graphique am cursus de graphique bi quand même am na am na solo parce que euh, am na taille bu baax am na euh, entraînement bu baax donc je crois que nit boo nekkee xale di entraîner comme il faut am sa hygiène lekk bu baax ak récupération bu baax da nga war am développement donc le développement a attendu vraiment sur site parce que depuis bu amee ces ces yi mu teglee entre moom ak euh, Boy Sey ak Sa après gis nga après dafa relancer waat entraîné waat defar waat bëre ak Zos daan ko mais après mu am encore benn tool ak guy euh, ak euh, guy gi donc combat boobu certes am na mais boo gisee source de de pression boo xam ne ne it na ci ci liggéey donc war na cité pare na physiquement certes xëy na ñàkkul ko son défaut c'est surtout le caractère parce que nit ki il faut mu am caractère mais le caractère il faut le contrôler après une maîtrise en soi donc loolu kese laay depuis dans son cursus mais hormis cela c'est un c'est correct discipliné ambianceur donc je crois que nit la boo xam ne nii ñun dañ ko war dimbali dañ ko war dimbali sur sa progression sur sa marche de progression. non en effet les principes d'efficacité d'une méthodologie d'entraînement ne dépend pas et la force vitale ne dépend pas de ay biologique et humain ñu ngi gis corpulence sumeeku ki time non la puissance est interne l'entraînement c'est interne parce qu'il y a le problème cardio donc nit ki bu liggéeyee cardio moo xam ne physiquement il est apte par rapport au principe par rapport ak euh, euh, méthode bi mu utiliser par rapport ak euh, système boo xam ne moom war na ko soit ci phase d'attaque en phase offensive ou bien en phase défensive loolu mënu ko mesurer tant que ñoom jàppuñu ko parce que seen entraînement yi ëpp yi si ëpp euh, mbër yi dans la dans dans dans sa globalité ci salle de musculation la ñu gis rare nga gis ay certains lutteurs ñu leen jël à l' entraînement de dañ koy nëbbatu mais nag musculation bi ça fait défaut parce que ça fait des charges le plus que musculation donc tu as des charge bourrées sur ton corps da ngay manqué explosivité da ngay aussi euh, propulsion da ngay da ngay manqué aussi li ëpp xañ ñëw fekkante Euh, sa xel baaxul sa donc di nga am un charge mentale par rapport ak li nga alterner euh, le contact et euh, le poids. non là je dirais que effectivement ce qu'on appelle l'implantation la mise en place la mise en œuvre d'une d'une organisation dépend de de la situation donc à partir d'une situation et par rapport à, à l'environnement yow war nga mën a xool ba xam ban conséquence la mën a ban incidence la war par rapport au tendances par rapport à la pression par rapport à l'affection surtout parce que euh, lutteur athlète du bëri dañuy dem ak des affections parce que l'affection ça fait partie de la qualité donc je crois que tey mise en place à partir du CNG euh, écurie euh, Papa Sow nekk sur un côté donc warul am benn diagonale de transversale boo xam te ne tëg ak tëggu koy tëg ñi koy tëgal ci beneen côté opposé par rapport ak moom est-ce que je sais je ne sais pas ndax yaa ngi comprendre li may wax parce que boo miiree arène nationale boo duggee si ci cubukaay yi Papa Sow euh, était à droite logiquement booy def une mise place d'implantation warul am benn euh, benn barrière entre moom ak ay tëggkatam mais il s'est trouvé que tëggukoon si te ñoo nekkoon diggante boobu donc c'est donc Papa Sow soit buy dem ci cubukaayam ci ci jaar ci tëggukaayu si te ou bien mu jaar ci kanamu Siteu parce que dem à parce que boo gisee ni mu toogee donc c'est en jagonal Siteu aussi c'était il était dans ka même cas aussi mu ngi nekk à gauche de Papa Sow boo duggee Arène Nationale à gauche mais euh, ci euh, të ñu koy tëgal ñu ngi Papa Sow à droite ñu ngi nekk entre Papa Sow ak ak ak ak ñu koy tëgal donc soit il est obligé mu jaar ci kanam Papa saw pour dem tëg tëg ñu koy tëgal soit mu jaar à jaar yooyu tëggukaayu Papa Sow pour dem foofu waaye ce que ça fait ça doit être défini gis nga sport dafa nekk loo xam ne dañ ko war a définir parce que les principes yooyu ñu ñuy wax ba lépp nit ki il faut mu am li ñuy wax une culture sportive parce que d'accord mbër làmb yeneen discipline yi am na fu ñu wuute parce que ku nekk ak sa gëm-gëm par rapport ak li ñuy wax les rituels les rituels religieux les rituels mystiques euh, euh, euh, yooyu yëpp ok parce que am na ñu ko gëm bu nga tene nga gëm sa nga xam fi ngay ñëw comme ñi ngay jóge football ñëw sa vestiaire nii parce que sa vestiaire nii ou bien beneen discipline làmb nag dañoo am ay tegtal dañaa lëkkal fii ngay toogee toogee lii bootal lii defal lii defal lii mais en ce moment mën nañ ko définir dès le début par entirage mais souvent làmb c'est un peu difficile parce que yéen naan ñëpp a ngeen di fàtte sur un côté maintenant tëggkat yi c'est là où que le CNG doit prendre ses responsabilités et par rapport au superviseur par rapport à l'organisation mbër yi je suis entièrement d'accord ñu am un choix mais il faut mu am benn barrière de sécurité entre ñoom par rapport à une distance parce que c'est bien défini dans les règles et dans le texte mais écuries yi ñoo ko dul respecté mais c'est li nga laaj ñi c'est bien défini c'est bien précisé dans le texte te xam nañ ko mais danaa dëggkat yi ñoom dañu war a mën nekk position yoo xam ne nii du ñu entraver le déplacement d'un certain que ce muy Papa Sow que ce muy muy parce que man hier j'étais euh, dans un plateau donc ci biir laa gis euh, positionnement yi mais boo seetee Siteu moment bi mu bëggoon tuus dem na bay jël ay jël euh, ay tëgginam dugg si géew bi parce que certes da bañ jaar si kër Papa Sow su ci ci cubukaayam soit mu bañ jaar ci tëggkatu Papa Sow mais finalement dañ leen génne mu jaar côté Papa Sow Donc, tu as mon incidence. Donc là, y avait la police qui était là, ils les ont bien sécurisés. Mais après tout ci, c'est là où se trouve le problème. Parce qu'il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus de suivi, il n'y a pas de veille, il n'y a pas d'alerte. Donc, euh, incident, il paraît que nous avons mon nom pour Yobo et Sarah. te nu ma la rek bu waa boole mën jaar <laughs> ci circulation ñu ñu bloqué ko dellu si waat Papa Sow on a vu le images bi muy dellu si la incident bi am non la je ne sais pas j'ai pas vu là je pas préciser parce que j'étais de loin mais quel que soit Alpha moi je parle du déplacement parce que un un athlète peut se déplacer quand il veut où et là où mais ñu di làmb yi nag ñoo jël ay yenn mesures yi doo jaar fii doo jaar fii non moi je ne pas yooyu je je pas parce que li nga xam te ne tey moo nga yóbbu làmb ji te ay mystique te sëriñ boobu ayoon aayoon day wax làmb ju dem amul benn sëriñ bu ne Papa Sow na gaañu ci làmb ji wala làmb ju am donc ça implique ne loolu rek wala leen mën a bàyyiloo xel da ngay def lu bëri xaalis bu bëri après ay détails yu ndaw ñu yàq combat bi te xoolal démb la sécurité dafa amoon y avait vraiment ils ont sauvegardé l'événement y avait la sécurité y avait la sûreté y avait l'ensemble des forces de l'ordre la police y avait la gendarmerie donc exécuté bi euh, bu stade loolu ils l'ont géré comme à l'entrée il y a pas d'incident mais souvent les sorties le public est dedans hier on avait presque vingt parce que le stade fait vingt deux mille places il y avait au moins vingt mille places et dis-toi que au moins sur les vingt mille places Siteu indi na au moins places donc loolu pour benn force de l'ordre surveiller ko je crois que ça c'est le comportement la discipline nit gi nag il faut moom yar mais bu fekkee nag d'autres personnes ñoo dugg ci indi leneen loo xam ne nii loolu bokku ci poste de l'ordre mën na ko gérer cité mën na ko gérer écurie bi mënuñu ko gérer donc ñooñu mënu leen xam non c'est c'est c'est parce que la, la, la à l'extérieur ça c'est c'est c'est c'est une débandade totale c'est une débandade totale mënoo xam kan la ñi ñibbi à droite peut-être c'est les gens de de Parcelles de Guédiawaye de ñoo fiy jaar de Pikine ñooy ñooy ñooy ñooy continuer ba nga ko mën nañ dox mais benn ñi nga xam ne dañuy génn ils sont obligés de passer par là ñu dem Yaraax fa la jaar ñi jëm ñu Rufisque la ñuy jaar waaye ce que ça fait donc il faut que à partir de maintenant ñu def ay réflexion xool naka la ñuy def ba créer ay voies de dégagement par exemple les deux ronds-points qui se situent avant la la l'arène nationale et après l'arène nationale je crois que l'État war na mën def ay ponts yoo xam ne dañu génn directement bii Las Palmas bi Golf Sud donc ceux qui sont de Dakar même mën nañ jaar noonu génn ou bien donc bi dem terminal bi traverse dem Las Palmas ou bien nga traverser dem Golf Sud donc je crois que ces ces deux ponts bu ñu ko amoon du am problème seen passe am na fi le vingt-huit passe je ne sais pas am na am na national mi ngi bëgg a tàmm laago dañuy yaakaar ne tant que ñëw stade dama chaise rek ñëw làmb ja donc si mooy li ma wax comportement chaque samedi chaque dimanche bu am làmb am na ay incident à l'arène nationale même ci biti mais mais même ci je crois que ça moo tax ma ne la ya des corps infiltrés certes ñu ci war am parce que invité ñoo xam lu invité koo xamante ne du amateur bokkul fen lu voilà xam nga loolu mënoo koo natt mënuloo ko natt et puis la euh, l'emplacement géographique n'y s'y prête pas parce que technopole bi ya yaa loo mën a jaar benn tali nga mën jaar pour génne euh, couramment labat beneen bi Euh, booy génn tribunal bi il faut nga jaar feneen mooy la mesure la mission la sécurité et le confort dafa ñu manqué dans dans dans dans ça mais toogaat bi moom c'est sûr que dina am sanction c'est sûr que dina am parce que semaine passée le CNG génne nañu benn arrêté comme quoi benn note de service comme quoi tout lutteur eux-mêmes écurie boo xam ne soit daan nga daan nga ña nga yàq dañuy sa sa xaalis te ñoo ñëpp jot nañ ko amul équipe bu ko jotul donc loolu noonu di kese rek war nañu mën a xalaat ne kat mën na sooyee sama mbër parce que ñoom ñaari mbër yi amul kenn ku si mérité du Papa Sow du Siteu kenn mérité wul tey def sa préparation combat trois ans Siteu jëmb sama bu ko da toog ne il a jaay na ay biens sax pour combat bi donc gis nga li mu ko jaral voyagé na pour combat bi mais ñi lu tax combat bi amul ñi ko yàq ñoom la mais du keneen mais ce n'est ni Papa Sow ni Siteu il une personne qui a fait quelque chose mais l'origine de la bagarre ñun mënuñu ko natt parce que y aura rapport rapports yi nga xam ne day am non bien non des, non c'est-à-dire des rapports c'est-à-dire le rapport du superviseur le rapport du médecin le rapport de l'arbitre le rapport des forces de l'ordre ak euh, euh, le, le, le, rapport de l'organisateur loolu yëpp dañ koy boole jox ko maintenant nag les écuries ñoom sen bopp ils ont des comptes rendus à faire ak compte rendu à faire mooy lan bind seen recommandation ak yi ñuy soxla envoyé ko CNG ñu boole ko sur un document et di a léegi c' est à eux de voir quelle la conduite moom mu laa expliqué nii léegi déggoo dama ne CNG gën na semaine passée une note comme quoi parce que kaw Forza def na ko semaine passée daan ñu ñu gars yi dañuy téye seen rédicat xaw après fay nañ leen parce que man je ne sais sur le côté financier je ne sais pas donc côté boobu géré xaw ma si lu bari parce que ñoom ils se réunissent en apartheid parce que y a une commission bu ko gérer commission boobu moom moo koy génne non moo laa expliqué man toog na sama plateau wax ak wax naa moom mi ci je crois que li am ci ci ci ci ci résultat mooy victoire ñu defet mais amul combat soit arrêt médical parce que l'arbitrage maintenant parce que par une chute ou bien par l'ordre des avertissements euh, l'arbitre joxe vainqueur mais quand il y a maintenant décision médicale xam nga ko beneen beneen cas la mën na nekk aussi absence de lutteur lutteur mën na absente ba ñëw ñu forfait ko déclarer l'autre vainqueur mais tel n'est pas le les deux acteurs ñu ngoon ci place donc ils ont rempli mission ba ba fin ils sont déplacés ils sont venus à l'heure xaj na que bu ñooy ñu di wax te loolu le superviseurs ñoo koy wax ñoo koy xam ñooy calculer quinze lañ may indi nga 40 indi nga 50 yaa indi nga 100 xam te loolu ñoom xam nañ ko biir loolu mbë réeru mbër bi ci des euh, moo di euh, sur la question euh, c'est bi mu def sur la victoire soit le lutteur dañ koy gaañ dañ koy gaañ comme le cas de Papa Sow que am na cas fi am kaaw Garga Mbossé am na fi Siteu gaañu na fi contre Gouye Gui. Euh, am na yeneen combat yi fa am am na blessure mais avant le combat si le médecin juge comme quoi yow mën nga bëri mu ne la bëril nga ne doo bëriñ on déclare forfait mais tel n'était pas le cas Papa Sow dañ ko ne kaay ji yooyu mënoo bëri moom muy xaru ne lay bëri te xoolal nit cinq litres de sang lam ci yaramam Papa Sow mu génn dem mat na au moins deux litres boo ko soit médecin bi ne à partir de règlement dit que au-delà de trois points de suture la mënatoo bëre donc dañ lay mais kii dañ ko gaañ avant muy bëre donc waaye foofu résultat mënul am verdict am fa le le le le euh, c'est annulé c'est annulé donc mënuñoon jox victoire Siteu peine lañ mënoon joxe à mon victoire Siteu médecin bi na ko tu es capable de lutter lii terewul a bëri bëri ñi loolu tax les écuries amaat beneen mission beneen mission mooy lan dañu war a am médecin te ça fait partie des règlements chaque écurie dafa war a ànd ak un médecin donc médecin tey ku ñoom ñaar ku ci amoon mbër nga gaañu sa médecin njëkk ci xool la ne mënoo bëree gis médecin bi ñu xool mënoo bëree amul problème mais même bu ñëwee ci làmb ji sa médecin bu ñëwee ci ji médecin bi nga xam te moom la seen teg moom moo koy coiffé parce que c'est le médecin qui qui généralise tout mais tu dois avoir un médecin comme les équipes de football les équipes de basket amul équipe bu dul sans médecin sans arbitre parce que loolu da bokk ci délégation mais écuries yi fii souvent sax ñi mystique ñoo ëpp ñoo ëpp mbëri ñi mystique ñoo ëpp mbëri et puis beneen bi alerte bi mooy il faut que les gens veillent d'abord sur les consignes ñi nga xam te CNG joxe na et les règles da bokk si écurie yemal si écurie mais mënoo en parallèle ak euh, ñaari écurie wala ñetti écurie mbër bu bëree nga dem parce que gis naa ay mbër yoo xam ne nii ay ay écurie bu ñu bëree ils se déplacent ci écurie écurie écurie te day ñëw stade loolu aussi mën na une tension mais day une tension yooyu day une tension dañ ko war a éviter donc moi je crois que l' des écuries il faut que le CNG amaat ci matukaay xoolaat bu baax les écuries seen fonctionnement xool seen encadrement naka la ñuy doxalee parce que incident wu mën nañu ko éviter si aujourd'hui Papa Sow mooy amoon na ay responsable ay mag yi nga xam ne ñoo fa nekkoon mais ay mbër kese la àndal avant Papa Bala Diouf Papa Bala Diouf Yaram Gueye fu mu bokk mi mi ngi bokk Rock Énergie papa euh, comment ça s'appelle euh, j'ai même vu un lutteur de de comment ça s'appelle de fekk mi ci boole un entraîneur de fekk mi ci boole et que ça c'est normal non c'est pas normal mënoo mënoo gisoo benn club dans le monde amul benn un joueur dem toog ci amul ou bien un il faut réglementer les choses làmb nag nit ñi il faut que ñu réglementer ko parce que bëgguñu ko réglementer parce que mënuñu nekk dans l' informel continuer dans l' informel li amoon suñu maam démb ak bëgg démb am non moo di kaa yi amul démb rek c' des répétitions à répétition donc on a peur fi ne nii le monde de la lutte a peur parce que lii du jëmale làmb kanam parce que ñëpp dañ koy décrier bien mais ñu ngi wane ñun suñu manquement suñu manquement mooy lan pourquoi ñu mën a am bijou mel nii war ko mën a assuré ba ñaan ay dañ koy def ay dalak nañ donc mooy manqué respect suñu autorité ñun ni ñu mat ni ñu mën doon war nañ mën toog ay yu neex yu baax seetaan teg suñu ataay di seetaan làmb ba mu jeex ku nekk ñibbi mais non bu fekkee yenn comportement yi nag amul ak yenn yare yi amul nga négocier eh, di di yàq mais je crois que le CNG war na mën a relancer waat encore les caméras de surveillance relancer ko ba ñëpp xam nañ ko def def ay gros plan di détecter les gens à l'intérieur ñu ut ay stagiaires di leen dugal ci biir donc stagiaires yi day war a mën dëkk ci biir tribune yi service de l'ordre yéeg complété leen comme ça moo am sécurité et puis yokk aussi de mesures de barrière au niveau euh, des des tribunes parce que il faut mu am euh, des guides de protection donc mënuma terminer sans pour autant remercier ma famille parce que dañ ma ko reproché très souvent euh, aw ma habitude dem ci média yi di di gërëmaati mais nag di maaga caama mu fii moom di di di di euh, donc maa ngi lay gërëm mais nag <laughs> ñoom Issa ñoom Saliou ñoom ah bari nañu kaar donc maa ngi gërëm ñëpp di ñaanal sama yaay yàlla na ko yàlla bàyyi ba ci kanam euh, guddali fanam donc yokk wér-gu-yaram yéen it aussi pareillement ci je vous remercie bi